dal leen ak jàmm booy wër réew mu dëgër bopp ba ñëw fii ci Sénégal bu yeboo nga dëpp te xam ne ak si nga ci jamono joo xamante ni coronavirus mu ngi lëmbee réewum Sénégal ba tax ñu daal di décréter ab état d'urgence fii ci réew mi di tere bépp dajaloo waaye nag mu mel nii boobale tere ñu bëri ci askanu Sénégal lank nañ ni duñ ko accepté loolee nag li koy firndeel moo di Bara Gueye mi nga xamante ni moom moom station Clean Oil moo doon takk ñetteelu jabar maanaam da doon jël troisième femme ba tax mu daal di dajale ab mbooloo mu sakkan Baara Gueye kim doon takk di ab xale bu jigéen buy wujoo ci turu Zeynabu Diène ñu gën ko xam ci turu Dieyna Diène di rakk ci mannequin bii di Adja Diallo li jaaxal nit ñi nag mooy Baara Gueye moom daa nekk nit koo xamante ni kenn mësu koo xam ci mumbaay bu ñu sukkandikoo ci ñi ko jege daanaka lu ëpp ci tempsam ci barabu liggéeyukaayam la koy passé moom taalibe murit bii di ku jege loolu Youssou Madjiguène doo dootut gaaw fàtte bis bi mu doon takk ñetteelu jabaram bi ci ab kër bu nekk ca VDN marché exclusive ca bisub mariage am ba nag ñu gis fa lu kenn mësut gis bañ décrété état d'urgence ci réewum Sénégal ba léegi bis booba nag nekkoon na bis bu xumb lool ci jamono jo nga xamante ni ab rassemblement moom dañ koy tere fii ci réewum Sénégal ngir xeex jàngoro coronavirus gi waaye nag ki waral te googu du kenn ku dut yaay xale bu jigéen biñ doon takk di wuyoo ci turu Maria maane moom mi nga xamante ni def na lay kàttanam ba indi fa ay géwal yu bare bëri ngir ñu ko def na ko bokk na nag ci géwal ya fa teewoon ku ci mel ni Alsane mbay di ab communicateur traditionnel ñu gën koo xam ci le griot des VIP ku ci mel ni nday juuf mu Serigne Fallou waaye tamit nemmeeku nañ fa teewaayu Adja Diallo di mag ci xale bu jigéen biñ doon takk ñaaxarañ loo di snapper ak ki nga xamante ni moo di Betty bu Pod et Marichou daanaka nag ca bisu xew ma dara manqué wu fa moo xam lu jëm ci wàllum sañse noos wala sax baatere lu ci ay millions yu bëri bëri ci askanu Sénégal xiif mu ngi leen di bëgg rey ndax seeni ay activité dafa taxaw ndax jàngoro coronavirus gi benn waay buy wuyoo ci turu Mansour Ndaw ràññeeku woon nafa fa loolu ndax ay billets cinq mille francs yu mu doon jël di ko battre de gauche à droite ginnaaw battre ak noos yi mel na ni nag feet bi na muy mujjee du neex ndax kat ay waxtu rek ginnaaw bi ci la gendarmerie section de recherche bu caserne Samba Jëri Jàllo bu Colobane dal di agsi ca kër ga tege nekk Bara yi ak ki nga xamante ni moo di Zeyna waaye ak ñenn ci invité yi fa nekkoon ku ci mel ni ñaaxarañ loo mannequin bi di Adja Diallo Alsan Mbay ak sax Ndey Diouf mu Sëriñ Fàllu arrestation yi nag li ko waral moo di ñoom ñi dañoo violer état d'urgence bi nga xamante ni day tere bépp rassemblement boo xamante ni am na ci biir réew mi ngir xeex jàngoro coronavirus bi en attendant marié yi di jeexal seen lune de ca brigade de recherche waa Tactic TV ñu ngi leen di ñaanal mariage bu jàmm te am ci njaboot yu barkel